Mathieu saar benn walla ci linjiin di xabaar bu baax bi ci almasi bi yeesu ni ko yàlla jaarale ci Mathieu lii mooy cosaanu yeesu kirist sëtu daawuda sëtu ibraayima ibraayima moo jur isaaxa isaaxa jur yanqooba yanqooba jur yuda ak i doomi baayam yuda fares ak saara ci tamar fares esrom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 waaye àndul ak moom ba keram wu mucc jur doom ju góor mu tudde ko yéesu